fer di ko dajale di ko dajale mu yar na ma gis ma ma ne ko est-ce que du xaalis bi dërëm moo ko. jëlal fulus bi balaa mu naaw. jëlal ko fa sàcc ma de. di dugal sama tur. ah sàcc ma de. Ah, ah, jox joxel xaalis jàmm joxel. moom la <laughs> mi ngi ne xëy na fulus. ci biir may gis la. yow lu nii rek la après nan ko rek. dégg demal. sàcc boobu nag xoolal calme gis nga. kal ba ñëw na. ci kal ba rek. te tatin la ak ci biir ci biir. xoolal xoolal kal ba kal ba bii ray rayxaana moom moo ma ko jox bi ma jigéen ma nuwaati. yow moom bu yàqu eh, nga sant. yow yaa baax. waaw sant ma bu eh. baax. yow lan ngay xulle ba nuy jël sa xaalis. kii kii gas roma rek rek xaw na ma su ma xoolee bi ñu ko doon wax gabar gabar. <laughs> yow yow yow war na maa sant bëgguma woon sax ngeen gis xaalis bi yëpp. <laughs> Eh? yow kii sàcc bu mag la toogal toogal yàlla <laughs> na yàlla defal di jàmm nga am koor amiin amiin ah, bu dul woon yow di gis xaalis bi <laughs> kii sàcc la na nga ko na nga ko génn kër gi yàlla ah, bi ci des mooy ah comme yow xaalis bi génnoon na ci sa xel yow moom yaakaaroo ne woon ne xaalis bi di nga ko jot bi wallahi la wallahi la waaw léegi damaa bëgg nga lebal ma xaalis bi dama koo soxla eh? yow pour que waxaat boobu <laughs> xaalis bi pour kii pour te Mauritanie la non soxna yi foofu di xaar dëgg la dëgg la dëgg la waaye yow xam nga ni bu soo fiy jóge dem Mauritanie te joxuma la xaalis te lii ma lay wax nii c'est urgence lebal ma xaalis bi saa booy dem Mauritanie ma joxal sa xaalis hmm. waaw doy woo ko dara fii nga koy rënk rek amoo jabar amoo doom fii da ko fii téye ba heure dem jot nga dem ak moom balaa caag nga jox ma ko am na leneen lu mu mën a jur yow it d'accord surtout. yaa xeer ah yaa xeer na laa abal. waaye ah su jox man su jox man. nga teg ci ñeenti junni surtout. ñeenti junni da nga ko ci teg ndax man xaalis bi moo suma capital ci laa liggéey ci laa jaay poone. waaw aywa may ci wëlbati suma loxo. léegi boo jëlee capital bi kañ. nga jox ma bénéfice. yow kon yow sa aminu alil sa aminu alal. kon amin wu bon ngay amee yow su dee nii nga nii nga naru dundeek man amin wu bon ngay amee. surtout waa déglu rek yow doomi jullit nga. Hmm. dégg nga. bokk ci xeetu yonent bi. yow nan ngay mën a lebalee nit soixante quinze ba pare bu lay fay bëgg mu teg ci yëfi korom da ko araamal yàlla araamal ko. loolu doomi jullit du ko def. man bokk ci xeetu bokk ci xeetu yonent yow nan ngay lebalee nit ki soixante ba pare na ko boo may fay da nga ciy teg da nga ciy teg vingt. boobu mooy si capital la loolu capital bi baaxul. moo wax la bénéfice bi nga fay ma. bénéfice bu araam ngay lekk nag. li ngay def nii diina bëgg ko lislaam bëgg ko. Ah. te doomi jullit nga. surtout booy lekk lekkal lu dagan. surtout waaye amul surtout. yow daal lebal ma rek. Hmm. su heure fay jotee ma fay la. su ma demee ba am lu ma yéene ci sama xol bi pour may la ko ma may la ko te yàlla rek tax. Hmm. mu bañ a dugg ci ay corompo di teg vingt ak yooyu. Hmm. loolu daal bu ci desee téewul ma. waaye yaakaar dina fay. man damaa man dinaa dinaa dugg ak bor ca bàmmeel xanaa damaa surtout yow mi yow ku lay leb te du la fay. surtout salaam yi wii. Ah, bul xas ma nag bul xas ma nag mu téye suma xaalis ah déedéet tey négocie tey da nga négocier ah, suma xas man rek mu téye suma xaalis man maa patron tey ah. <laughs> yow suma xarit la <laughs> gas sara ma rek. tàpp bi ñaar de. aywa waxda زلازة خارل خارل أربعة غني جن واحدة واحدة واحد زنتين زنت فان زلازة تراند أربعة كاران بوب منك كار كاران كاران واو كاران أنت ميل كاران أنت ميل سنكانت سوسانت سوسانت ديس جاخد أمنا في سامي mu nekk soixante quinze. soixante quinze nga ma jox nag. surtout. laxlaf. Hmm. soixante quinze nga ma jox. laxlaf xam naa la. da ngay réer. da ngay génn ñëw fii naan ma ay quatre vingt dix nga ma joxoon ak i cent. kon bàyyi ko kon bàyyi ko. man man man nan la naax jox naa la jax jële rek. kontaan naa. <laughs> kalpe desatul dara. moom damaa yaakaar ne doon maa yem. allo kooku kombe eh bul ne man bul ne ma mane bul ne ma na nga def bul ma ne tontoo bul ma nijaay yéen yéen yéen kombe fa fan ngeen ne yéen yéen a ngi mbuur rek toog rek bo bul ma expliquer yéen fas yéene wu leen a ñëw kon ci kër gi ti ma merde dama ne quitté leen mbuur ngeen ñëw ci biir kër gi seriñ gañ fex na ba jarbaatam ñëw ci biir kër gi muy cas yéen war ngeen a toog foofu war ngeen a toog foofu cas dem ba may di diir mbagg ci biir kër gi ah ana jox ma ko jox ma ko moom eh bu ma ne allo yow yaa gën a ñàkk fayda ñëpp ah yow yaay mag bëgg a toog foofu lu ngeen di def foofu dajale leen seen bagage ngeen ñibbi ci biir kër gi bu déglu bu ma la ko waxaat gannaaw suba dajale leen seen bagage lépp lu ngeen fa am ngeen ñëw ci biir kër gi waaw ndaa man naa leen yónnee paas suba gannaaw suba ngeen ñëw waaw jeex na bu leen fa toog ah ngeen fayda trop is ñëw fii jonganteeg booy bi danoo réew rek rek sarbet boo xamante ni bu ñu nee deux jours la am nekk nekk magum jëmm di tilimal bii sax a tane man fóot naa fóot a fóot ba sonn lii kenn xamu ko. eh yow Soda yow yaa bàyyi ba ma génn yow ak sa ngeen jàpp cas dóor ba mu nooy ngeen teg ko fan. dóor waaw ku dóor cas. yow xamoo ku dóor cas ah man xaw <laughs> soo de yow yow dëgër nga fit de yéen cas loo leen moom ba koy dóor sama jar jëkkër la nag jiboowuñu waaye bëgguma ku ko laal ndax ku ko laal laal ma wala gis nga wuy ma ma ko kombe fii la ñu nekkoon ci kër gi di ma bëgg a rey te defuma leen waxuma leen ndax dama leen a xoole comme samay raq kon nag noonu soo ko defoon cas sa loxo du ko laal wala man yàlla xam na ne laal ma hmm. gis nga barkaat démb ba nga génnee man jékki-jékki naa nekk ci biir hmm. di defar ndogu di waaj di kii ak yooyu ci laa jékki-jékki gis cas mbëkk sama nijaay mu daan ci suuf eh. ma ñëw yëkkati ko ne ko konte ay kilifaam nekkuñu fi bu la tooñee baal ba seen ba ba ñu ñëw loolu da laa ci wax sa digganteeg yàlla loolee dama ne yow enregistré woo cas tegal ko sa jëkkër enregistré ne cas da nopp ak yow lu la cas doy ah. ay waay yow barki démb ba ma toogee fii di vocal nday awa yaa ngi dégg di ko wax waxu tuur beeg natt bi booba cas ñi ngi toogoon di waxtaan sama nijaay ah, kon loolu la dégg loolu la fi indi coow bi te yow nga fekk coow li man man mi fekkoo man maa lay wax lu fi indi coow li man maa la koy ah, wax man xaw ma man dama doon defar ndogu xam nga lu ma bëgg à partir d'aujourd'hui cas bu ko sa loxo laalati dégg nga ma soo jógee mel ni ku xamul dara te xam nga kër gi tey man ak yow doo nga fi nekk ñi ma woo wax. man kay loo tax ma noppi. ah kon saa bu fi kenn nekk bu ma waxee ak yow bu ma nee la benn nga ne fukk. tey boo fi waxee dama lay fiile fiile fiile fiile ba mel ni ku yor sa doom. maa dégg nga ma mais man sa mag laa ay yàq. non ah boo xamoon loolu di nga ma respecté xam nga joxuma cër. man dootoo dégg ma coow. mbaa bu ma dajee teg yow si kër gi li ma bëgg ngay hmm, ah, yeewu teel di baleetu bi. parce que man dootuma baleel kenn. man loo bëgg rek da ngay dof dof lu te dofoo. bu fi dërëm nekkee nga nekk ci kër gi bu ma nee benn nga ne fukk. loolu day jeex day jeex de neel day jeex